moytu leen moytu leen moytu leen attention stadion Battlefield. fii ci Touba Ndorong Sengane euh, di gërëm vraiment Sénégal yëpp yi nga xam ne nii xëy nañ tey wote ji ci jàmm. Euh, ndax gisaguma benn benn incident te yàlla bu fi benn incident am euh, euh, di féliciter encore l'organisation ma fekk ci biir ak président bureau de vote bi ak ñëpp vraiment gis naa ne Sénégal démocratie mu dëgër na ci administration et j'espère que incha allah loolu dana continuer. yokk rek mooy sama candidature dafa nekk candidat boo xam ne nii. Euh, yàgg nañ ko wax et c'est la première fois euh, mu am muy candidat boo xam ne nii voté dakaar Dakar la boo xam ne nii ci daara ji la jógee candidat boo xam ne nii liggéeykat la te jaar na ci expérimenté wu ci ba noppi bi ma waree Sénégal tamit je pense que daje naa ak sénégalais yi gis naa ne euh, sénégalais yu préoccupé lañ ci ci élection yi ak ci jàmm et waaye nag gis nañ ne. bëgg nañ ku yàlla def nga jël ko te yàlla na nekk man ah nga euh, jublu ci xëyu ndaw yi ak tamit dimbale njàng mi njàngu ñaa njàng yëpp parce que ñu bari dañoo jàpp rek ne njàngu daara yee sonn mais njàngu école yi tamit sonn nañ abri provisoire yi bari na dimbale nit ñi tamit ñu mën a am dara lu ñu def seen poos ndax coow li coow li ci réew mi euh, am loo def sa poos te wax dëgg yàlla mooy indi jàmm ci dëkk ndax euh, yàlla sax ci ilaa fi Quraysh ndool la wax pour jàmm am lépp am il faut mu am sécurité alimentaire ak sécurité publique te yaakaar naa candidat yëpp gis nañ ko ndax candidat yi euh, euh, yaakaar naa ne mbooloo mi leen toppoon di daw seen gannaaw ci heure liggéey dañ ci war a jàngat ne nit ñi amuñ liggéey amuñ préoccupation e loolu man loolu laa jàngat sama sama kii ci sama tournée li ki des nag mooy xam li lay xaar et je panse que ku ko gagné tamit boo paree. nga dox jàmm réconcilier sénégalais yi ñu dem liggéey te wàññi politique bi alors gis ngeen ko dégg ngeen kàddu yi nga xamante ne moom la Serigne Mboup wax jamono ji jàppale ne candidat bi daal dinay def li nga xamante moom mooy wareefam ñëw ci bureau de vote bi voté fi mu nekk nii nag ñu ngi fii nga vote bi la ki nga xamante moom mooy Serigne Mboup defee votam 9h55 la dugg ci bureau de vote bi def li nga xamante moom mooy votam kon fi mu ne nii jàppale ne moom ci boppam daal dinay tànn euh, def li nga xamante moom mooy devoir civique am euh, ba mu génnee nag waxtaan ak taskatu xibaar yi dégg firndeel la ñuy duppee démocratie ci biir réew bu Sénégal daf koy daal di dëgëral ndax lii moom la askan wi am yelloo ko ak ñi nga xam ñoom ñooy maanaam euh, seen bopp ci boppam dem tànn ki nga xam euh, euh, moom moo war a doon juróomeelu njiitu réew bu Sénégal waaye bu fekkente ne askanu Sénégal amuñu yaakaar ci moom tànnuñu ko ba fal ci li nga xam moom moo fi ñëw jàpp na ne li ko war mooy mu def kim kattanam ba ñu am li nga sax moom mooy koom-koom bu dëgër ndaw yi mën a dem jàngi ngir ñu xeex lépp lu jëm ci wàllum maanaam la ñu duppee nag immigration irrégulière waaye tamit li nga xamante ne moom mooy bonne gouvernance ñu taxawal ko ci biir réew bu Sénégal ñu respecté ak li nga xamante moom mooy euh, seeni kàddu rawatina li ñu proposé askanu Sénégal.